kon ni ñu ko programmé ci fan yi yëpp procès sur procès bu la ci gën a ñàkk solo nga ne bii la te lépp ngeen xam lan mooy jubluwaay bi ñu ne woon donc gàcce gi am démb ay nit yoo xam ne ñaari at ñu ne yor nañu ay preuve yoo xam ne bis buñ ko génnee àdduna tukki defe naa keroog rek bi may mujjee wax nee naa leen ku ànd ak Ousmane Sonko boo tëddee demal nelaw ba yandoor ndax lu toll ni tarfata ayn ci preuve amuñu ko ndax lu am mooy am preuve waaye lu amut mënul am preuve mbokki Sénégal ndax yaakaar ngeen ni man Ousmane Sonko rafle naa ci jigéen ba naan maa ngi dem di siif jigéen loolu mun na dugg ci xelu kenn ci waa senegal di ko def nag di ko defaat di ko defaat ci bërëb boo xam ne mën nañ ma faa jàpp loolu xel mën na koo nangu xanaa su ma demoon bay siif sax du dem seetlu niroog dàngin gu AVC ma naan moom laay siif wax dëgg yàlla ñàkkuma choix man yàlla xam na ni su doon lor rek laa soxla jigéen rek laa soxla bëri na foo xam ne bu ma fa xoolee tàllal loxo ne soxna laa bëgg ñu may ma tout suite kon ban rafle laa war a am ba di lambar lambari naan maa ngi siif ay xale yu jigéen amul benn jote boo xam ne am na sama digganteeg xale bi waaye ay nit jël nañ ko ñëpp xam ko xam ni Mamour Diallo moo sumboon mbir mi ànd ceeg maître Gabiso loolu ñëpp xam nañ ko moom ci boppam wax na ko ci ay audio fan la juge bi teg audio yooyu démb li tax tegu ko ñëpp dégluwaat ko lu dul laaj na ko ndax ojo yi nangu nga ko mu ne ko waaw nangu naa ko maa ko wax waaye dama doon kaf koo xam ne nee nga da ngaa ëmb depuis ñetti at wala ñaari at ak genn wàll wasino ñu ne la li tax nga wax ko dama doon kaf dama doon naxet nga dellu si ni yor naa ay preuve yu dul jeex mi ngi fii sama téléphone musoo génne ay preuve nga dellu si def say ojo wax lu doy waar loo xam ne ku ne tudd nga ko ci ñi nga wër ne def na ma lii def na ma lële ne Mamour Diallo moo ma sant lii ma dem ba xam ne aw ma pexe ma ne naa ko nax moo tax ma woote ne ñëw leen am naa li ngeen bëggoon loolu suñ ko tegoon ci tribunal ab juge warul sax naan damay toogaat di déglu 30 secondes waaye li gën a yéeme mooy ñii nga xam ne ñooy comploteurs yi ñoom la waroon yoon waroon topp tey ñu daan leen daan yu méttee métti ndax seen caaxaan bi lor na doomu aadama yu bari du bakkan yi ci rot rek waaye ñaata ay alalu jàmbur yàqu na ci ñaata yoon lañu jël réew mi naj ko ba kenn noo noo yeetul ak image bi ñu yóbbu ci senegal ci international man mii nga xam ne maay principal victime bi bu ma amuloon sama fulla ak ndëgër laay te yow askan wi nga jàppale ma ci te yàgg naa la wax ni du ma la mus a rusloo ndax wallaahi liñ ma jiñ defuma ko du ma a rusloo su du woon loolu tey maa ngi woon rëbës bu yàgg foog ngeen nag dinañ jaar foofu yépp ba egsi fii Macky Sall toog ne fa ma bàyyi woon liggéey bi fa laa koy jëlewaat dinaa ko yeggali déedéet loolu mënul ne ndax bakkan yi ci rot war ñu ñëw gën a gore ñun ñoom la wax ñu ne force restera à la mooy ñoom li ñu bëgg a def loo justice dañ koy def ba mu mat sëkk faalewuñ ci Masamba ñu ci Mademba faalewuñ ci preuve faalewuñ ci ku am dëgg ñun nag ñoo war a am suñu fulla ba nit wan leen ni force restera au peuple mooy askan wi kenn du ko noot ci lu dul dëgg li xew démb gàcce la ci senegal rus naa ci